de ñi ko war a bàyyi bàyyi nanu ko man xaw ma de damay wax lu leer ndax yéen da ngeen di bind lu ma xamut dama ne bu dee ñi muy tàggu bàyyi nanu ko ñi nga xam ñoo yor kuy génn ñu xool soo sa kaaraange génn ndax man bi may def sama programme damaa dem ñaani préfet préfet laaj ma fu ma koy defee ma def ko na def noonu. ci euh, soxna Aïda Diallo ñu bëggoon xam seen relation yéen ñaax soxna Aida moom Cheikh Béthio moom Serigne Saliou waaw relation turandoo relation mbokku taalibe ah baax baax yaru bëgg sëriñ bi am yërmande am vision te bari na loo xam ne ku ne war na la Sénégal te moom mi ngi ci dëgg yàlla loolu laa ko xamal. ñenn ci Sénégal lu def as mumbaay la moo di as aztèque li nga xam ne daanaka moo di périque du samay wax sénégalais yaa ko wax ñi ni jàppee ne as caaxaan la loolu en tant que voyante du peuple euh, naka la demee. cheikh bi daa bëggoon lu rafet gisuma lenn lu soxna di jàll def te bi ko cheikh bi nekkee defu ko li muy def yëpp bi fi bi fi cheikh bi nekkee mi ngi koy def kon dama yaakaar ne ndigal la ko ci am wala mu neexoon ka ko fi bàyyi. loolu awma ci debaa ndax man maa ngi ci li ma yi nag kenn mënu leen tee wax ndax bi leen yàlla defalee làmmiñ defal leen tuñ defal leen bëñ wax rek a tax mënuñoo fexe ba du duñu wax waaye nañ duñu xool nit ki ci lu rafetam li muy def ñu wax ko moom lu ñaaw li rek la ñuy xool te lu ñaaw li am na ñoo xam ne duñ ko gis ci ñoom ba mukk pour sénégalais yii li ñuy wax nii ñoom bi leen yàlla di sàkk wax a tax ni nak bu yag ba dañ dan wax lu bax way leg dem nañ ba xam ci ñen ñi lu bon rek la ni wax ak lu bon rek la ni xol loolu mum awma sen débat sénégalais mënu ma daj sen débat waaw motax sénégalais di ci gëna am sax fitu dañuy wax ki nga xam da naka modi soxna soxna ni muy xamna man ma la ko laaj nga lan ak lan lay jité yow mi ko wax nga wax mama xam waa mom lañ bëgg mu jité wa dénkaane la cheikh bay leen dénkaane moo ni ko yaay man may yow top ci man moy dëgg-dëgg top ci yow ci lolu ñom la déggoo man la amna ño xam sax tay ñi ngi may waxal ni ma toge ni amna ñu ne mariage ma eta duñ ma wutal sax dat mané la Sénégal ba ko tuñ ak lamiñ ak bëñ waxa tax légui na dañ dul wax lu rafet nañuy wax lu rafetu nit ki te ba bon li ñom lu bon lañuy am diko fabriquer diko togg bam ñor diko yak di ci lembaaje fi amul ku baax ku nu waxalut ñu baax ñep ñing leen di waxal salam jeexal na émission bi ci jamm ken la jaar man paré na dootuma waxaat man sama émission ma koy defal heure sama rawani ñing may door ci ginnaw ni ma merci ti arrêtel dëkk bi da ngaa mënul wax yow dëkk bi yow gars yi est-ce amul def tamit soxna sa sonaay tamit fan li ci njëkk mooy noppi nañu noppi te ñu maandu te ku ne li nga yéene sa bopp nga yéene ko jàmbur loo xam boo ko waxee seen njaboot wax ko say doom wax ko sa bopp nga dégg ko mu metti la nga la bu ko waxal nit wasalaam na nit ñi delloo si xol te bokk ñu koy maa waxatu looy laajaat képp ko ba beneen yoon merci beaucoup. Baye Fall dafa ne woon at moom rek ay yëngal euh, li nga xam ne daanaka moo di réew ñu parce que fan yi ñu génn ba ñoo gis ñenn ci maaraay dañoo xaw am li nga xam ne daanaka moo di as noppi nag nga gisee euh, ni mel Yaay Fall ne moom rek ay yëngal après korité kenn dootul wax loolu. Yaay Fall sama doom la Yaay Fall maa ko ñaanal maa ko ne fii doxalal. waaw ñi mu jiitu la wax ñi mu jiitu kay am na droit jeune jeune de maaraay am na droit ni leen nañ noppi moom mooy seen directeur mën na nekk loolu mën na nekk. mais nee am na ku muy te ki muy sang kooku mooy nekk président. waaw mën na nekk. pourquoi pas non mun na man man man maa yaayam maa toog fii ñaanal ko ne ko doxalal te boobu ba léegi gis naa ne mi ngi dox waaw man ki may sang mënuma ko bokk ak benn gone mënuma ko bokk ak benn mag ndax ki may sang bi ma koy sang kenn xewut. te man duma xeewi alali sëriñ saaliw laa ci kaw rek ca kaw ca kanam li may mën ak li may def mag sax mu ko sóobu doo yegg waxantuma laa gone yaay faal sama doom la sama sœur la sama lépp la waaw wax na dëgg jeune maaraay dañoo bari ah ñi feeñ après ginnaawam non man duma jeune maaraay ah? les rois des maaraay waaw la reine la king messi tur yooyu yëpp mën a boo duggee ci internet bi tàppe sama démb tàppe sama tey xam ne maa mën maa bari doole ñëpp mën la ni topp. mais bu loolu ñëpp dañuy yaakaar ni muy yow ak keneen ak yow ci nga bokk. Ah, leen bàyyi leen jaxasee. non non bàyyi leen jaxasee moom xam na ne man man man boo bëggee dégg dëgg léegi li may génn internet bariwul parce que liggéey boo gis da ngay qualifié. man man international bi pour ngeen am interview gis nga li ngeen di daj teguma la yu teguma set bo day xol liñ def yeb waxtan la mais du question pour set parce que damay setal ay kilifa nekatuma ci ay loxo tok di wut client wala dara ba dama plafoné waaw non dama plafoné ñëpp ma soxla kuy nit ci réew mi di nanan ci réew mi nit ñi bayila xel nga bëgg yok bëgg kawe egg fu nyep eggu tiim ñëpp coow li bari ci yow yow xoolal ci soxna yi da nga bokk kon maanaam àndatumaag lu bari damay ñaan kay yàlla guddal fan bi ñu ñaanal ma ko aussi maa ngi ñaan Sénégal nit ki nag bool kenn du ko ñiit da ngay toog jël ba nga xam ni tey nga nga nekk nag di job sa job de présentation pour internet kenn ku ne xam na ni léegi man internet maa mag loolu mais lii moo ma mën a génne ñu waxtaan temps en temps ma nekk ci ruq mais aw ma temps yow xam nga ne aw ma temps bi ngeen di ñëw fekk ngeen ma maa ngi wàcc oto bi ma ñëwee bala may naan ndox sax damaa toog ak yéen waxtaan ak yéen parce que da ngeen am cër ci man ndax ñi ma wane da ngeen cee bokk. mais dégg naa korité bi da nga ma ay nag laa seddale waaw da nga séddale waaw ay da jàll mu Cheikh Béthio jàpp ci lool nag daf maa yónnee yónneewaat ma ak li ma tàmm di jënd chaque at ci sama social dama seddel ba dessal ta tay ji ben bi tay la koy fat tay ben bi tay lañ koy fat tay waaw mi ngi wax ñun ci social droit social la am mum la bëgg femme développement ah waaw manam talibi Serigne Saliou saliu bang ne kumay bëgg rek bëgg ma ngir Serigne ba ah. bu ma kenn bëgg ngir dara bëgg leen ma ngir Saliou mi taxoon ngeen jappuma gën na leena denk sama bop man alal rew mi la alali international la ñeena ma moom da ngeen may jiital rek ma topp seen ginnaaw kuy xool ci man rek xoolal sa jëmm wala sa bopp ci man bu kenn jaaxle nag ku am loo ma war a laaj tëjuma samay bunt ku ma soxla parcelle unité trois cinéma bi ajaratu soxna ay dem moom Serigne Saliou yaay wàlli bàllaago mi ngi nii eh, jeex na taalibi Serigne Saliou wasalaam merci beaucoup